kenn kilifa diine kilifa aada yi jërëjëf Serigne Saliou waaw ñun nag am na ñu naqari trop chaque jour maa ñëw ay télé di wax chaque jour maa ngi wax te kenn dégluwuñu kenn faalewuñu di nga nag gars yi nag ñoo ngi jàpp booy di dóor xam nga suñu suñuy morom nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom chaque jour euh, ak ba booy Baba si ñu reyante seen biir ah ñoom ñuy seetaan booy i machine ñuy dem si ay gaal xam nga métti na trop daal lañu lañ xam ne ñooy ñan war na Serigne Touba nag surtout maa ngi di di déclaré di wax ñoo sonn nag billahi wallahi wa taala ni ñu jàppale xam ne ñun si réew mi lañ bokk doomu aadama yi si bokkee soo ji damay a man wax ji ful la xam nga li nga maa ngi wax naan nit ñi dañoo xiif dañoo mar xam nga ne dañoo dem ba taay bu ba di jàppale néew gi doole yi bàyyi dañu wax ne dëgg per waa États-Unis ñëw di jàppale ay néew gi doole di leen di leen soutenir barax yaa ngi nii barax yi mu doon kaas yëppal ñooñu nit ñi ko defar monsieur le maire seetaan ñëpp seetaan nañu ba si kanam yàlla mais yàlla seetaan nañu nag xam nga maa wax nag defuñu ko seen bopp yi mais barke sëñ Bamba nag aussi vingt dina mel si ñoom te ñun demuñu fenn ñoo ngi suñu biir koñ yëppalan dëkk te duñ fa jógee incha allah rab ñooñu reyante ñooñu reyante suñu biir ñooñu reyante nañu nañu gersu lan la nañu gersu ngir yàlla war a suur yi ñun kàpp duñ loolu sa juró ñu nekk di wax di wax di wax di wax te ko yaa ngi jamono xoolal per sama loxo bi yaa ngi gis nii yaa ngi gis nii yaa ngi gis nii xoolal lii sama sëriñ bii moo yàqu barke Seexul Xadim mu nekk loo xam ne ni ñu naqari xam nga boo yaa ngi dee ñi ñaa ngi dee si gaal yi ñi ñaa ngi ci kenn kenn waxu si lan la ñu dañoo am lu ñuy ragal wala ñu leen bàyyi xel na Sëriñ ñuy bàyyi xel yàlla la ñuy bàyyi xel billaahi wala wa taala nañu suufe nañu dimbali te yàlla ci xam nga ñooñuy wax biir di ñëw fii ay Sénégal di wax ci ay média mais billaahi nii kuñ si koo xam ne yow bokk nga si yàlla na suñu borom xolal yàlla suñu yàlla suñu àq ñun ñu si taay ñëpp bi di ay mbarañ mbarañ yi ñàkk fayda waxuñu si ñàkk perte ñu am fële la ñu di wax ngeen déglu ko xam nga booyaa ngi dee ñooñu rey booy nag bàyyi ñu leen xel nag musu ñu leen a bàyyi xel man du ma dox nit njaay laa man waxuma sax ay monsieur le maire yi nekk yëmbal aujourd'hui dafa amul yëmbal aujourd'hui dafa amul yëmbal amul sax yëmbal aujourd'hui dafa amul yëmbal barke Seexul Xadim su biirama koy wax barax yi ñoo ngi koy defar Pierre yàgg naa fee ñëw taxaw si barax yi di wax génne sama wékkat di mën ak gaay yëpp ñuy defar barax yi xam nga kon bu ñu seetaan gën ñaa YouTube bi man gën ñaa wax si ay médias gën naa feeñ mun ndax damaa nekkoo si ay àll Mbaye Gueye mu ngi nii dañ Mbaye Gueye ñëpp xam nañ ko Mbaye Gueye Mbaye Gueye ñëpp xam nañ ko c'est bu naagis kenn xamatul fu mu nekk kenn xamatul fu mu nekk yàgg naa taxaw di xeex yàgg naa taxaw jamonoy RTS2 moom ba jamonoy Laay Wàdd moo njëkk a taxaw di faayatal yëmbal kon ñoom ñuy seetaan ñoom ñuy bàyyi xel billaay wala watalaay booy na di nekk seen bopp yi nii di nekk seen bopp yi jamono ji war na ku tedd gi Sénégal lañ nekk Sénégal mais nag ñoo ngi reyante ñoo ñu reyante xam nga wala ñoo kirim nag di di ñu kirim nag wala ñuy rendi xam nga bu nekkee nag ñun ay yàlla ñoo sàkk bu ñu rey nañ ñu wax ñun rey xeexuñu si ay problème ñun nag dinañ topp ñi nga xam ne ñoo fi nekk te ñoom la yàlla àndal te dinañ ànd ak ñoom insha allah rabbi billah wala di sant waa diaspora bi bu baax waa diaspora bi di sant waa états parce que Seexul Xadim sama papa ñu nekk États-Unis nañu soutenir nañu gersu nañ gersu askan bi nañ gersu askan bi baaraamu dala nag yalwaan la mais juróomi baaraam juróomi baaraam yi kala la yi nekk bi yëpp yalwaan doomu la ñu nekk si dëkk bi yalwaan kese bu amul benn àpp la nekk si dëkk bi ah léegi ngeen xàmmeetul Sénégal Sénégal ban liggéey la am Sénégal ban liggéey la am Sénégal ban liggéey la am ngi mbiri ni seen ñuy fay douze mille buñ buñ dañuy dem jaay machine yi bu léegi bu jaayee machine yi yaa ngi may déglu dañuy dem jëli gaal yi léegi bu jëlee gaal booy dañuy dee lan la ay góor jigéen lañuy dooleel ay góor jigéen dong lañuy dooleel ana góor yàlla yi ana góor yàlla yi nañ jàppale góor yàlla yi ñu bàyyi seen caaxaan yi nañ nañ jàppale góor yàlla yi tey lañ tax ñoo ngi jàppale ay góor jigéen di leen dooleel si ñuy dëkk bii du yoon du dëkk du yoon ñoom ñoo leen gën a nekk ay intellectuel foofu nañ jàppale góor yàlla yi ñun ay góor jigéen de duñu ay kanaara yàgg naa ñoo fi Sénégal di wax kon nañu dimbali nañu bàyyi xel ñu xam ne ñun si askan bi lañ bokk si lañ bokk si lañ yàgg a bokk nag ba ñu seetal suñu bakkan wóor na suñu tubaab Aliya rey na Aliya moo moo rey sama benn gars yi boo xam si dëkk bi xam nga ñu leen ñuy wax loo xam nii amul ñu si dara ba si ba ñu dem si kenn si sixième ñëpp laay tàggu di leen wax ne procureur ñoom lay wax ñoom ñuy rey ngi jël ay bant duñu ko yoon ñun si réew mi lañ bokk amuñu nag baat amuñu baat si réew amuñu baat de ndeysaan suñu loxo jutul ndax ay néew gi doole lañu ñoo ngi sant yàlla nag di sant Serigne Touba di sant yàlla di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax